Euh, dispositif protocolaire dafa ànd ak euh, benn protocole euh, comment dirais-je benn protocole boo xamante ni day respecter les mesures barrières parce que xam nañ ni contexte baccalauréat bi ren ni mu demee dafa dëppoo jamonoy mbas moo tax euh, bi ñuy ñëw jël nañ toutes les mesures avant examen bi pomper salle yi créer un dispositif de lavage des mains xale yi aussi dans les salles toogaay bi respecté nañ distanciation distanciation sociale bi ñu ñëwee aussi avant le démarrage de l'épreuve de philosophie partagé nañ ci ak surveillants yi ñu rappeler leen. les disposition classique yi ñu daan jël ci baccalauréat mais ñu gën a insister ci le respect des mesures barrières ni ginnaaw mbas mi dafa dëppoo euh, examen bi dafa dëppoo jamonoy mbas. am na ay absent am na ay absent parce que centre privé Fallou Gallas mi ngi abrité ñaari jury ñoo fi nekk benn jury bi L2 la benn juri bi euh, lettre arab la ñuy def. bu dee jury L2 bi normalement waroon nañu am cent 161 présents mais ñu ngi am cent cinquante 156 présents kon ci foofu am na juróomi absent ci jury l bi nga xam ne France lañ def waaye li nu constaté tamit seetlu ko mooy ci juróomi absent yëpp yooyu ñooñu ay jigéen lañ waaye góor ñi amul benn benn absent góor ñi ñëpp teew na mais jigéen ñi dañ absenté fa ci jury bi nga xamante ni dañuy def arab foofu am nañ fa 185 présents ci 196 foofu tamit ñi nga xamante ni ñëwuñu juróom yi jigéen lan juróom benn yi nekk nekk góor lépp nekk fukki nit ak fukki élève ak benn yoo xamante ne war nañ teew ci jury arab bi te ñëwuñu boo xoolee ñi absenté ñëpp nag ci centre bi ñu ngi toll ci fukk ak juróom benn 16 alors que ñi waroon def ñëpp ñi ngi toll ci euh, ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar. loolu mooy loolu mooy état présence yi mooy mooy mooy statistiques yi donc constaté na ni am na 16 absents sur ci trois 357 yi nga xamante ni ñoo waroon teew ci teew ci centre bi. waaw mbas mi amul amul gàllankoor ci liggéey bi parce que baccalauréat moom euh, de façon classique naka jekk xale yi ni ñu daan toogee dañ leen daan. Euh, écarté ba nga xamante ni kenn du mën a xool li moromam moom moromam di def waaw yeexulul tamit liggéey bi ndax lu jiitu ñuy xale yi di egg si ci buntu centre bi placé nañ fa ay nit ñoo xamante ni ñoo jël seen température ba pare indiqué leen dispositif de lavement bi ñu dem raxasu dugg ci ci saal yi bu yàlla dogale tamit benn élève am aajo ci diggante bi bu demee dox ko bu ñëwaatee bala moo duggat saal bi day demaat reproduire les mêmes gest barrières daal di raxasuwaat soo ko duggaat ci salle bi dans les salles aussi ci biir salle yi xale yi tamit takk nañ masque euh, surveillants yi tamit ñoom yi tamit takk nañ takk nañ ay masque waaw taux taux de taux de participation bi bon bu centre bi yëpp mi ngi toll ci 95 virgule 51 pour cent bu bu centre bi yëpp boo ko désagrégé woon en garçon da ngay am 96 pour cent virgule 89 pour cent ci góor ñi ci jigéen ñi nga am 94 virgule 38 pour cent waaw boo ko désagrégé woon. mesure barrière yi ñëpp ñoo ci ñoo ñoo ci yem li war surveillant bi moom moo war élève bi kenn ku ci nekk da ngay sàmmanteeg mesure barrière yi ngir ñaan yàlla mu musal la ci mbas mi waaw ku ci nekk takk na masque bi ngay dugg si école bi tamit bon passé jaar nga ci raxas say loxo am na. lave mais boo xamante ne ndox ak saabu la saabu yu adapté am na dispositif lave mais boo xamante ne tamit gel bu ñuy utiliser la ci euh, ci école bi.